ci suis euh, yëpp la directeur général bu COSEC mom dafa jël dogal kon ni dafay liste parallèle ci commune bu dias la daldi xamlé Mamadou modi askan bay euh, ci dias ci sen bop ñom ñoko bëgg ñu population yi ñuy euh, lu baax ci euh, qualité bi kon moo euh, moosu ku ci mel ni ma Mamadou Dione moom jël na dogal kon liste parallèle lay def doon candidat ndax askan bay yeewoo ci jas ñoom ñoo bëgg mu nekk fa maire. bu fekkee bu fekkee takkatal ndomba tànk gi mu am utiliser na ko ci waa jas mhm. du am ku muy jàkkaarlool jas mhm. lu leer laa wax nag. Mhm. takkatal ndomba dànk gi mu am ak ni jas toll bu ko utiliser biir jas

do am kenn ko jàkkaar lol mais nag euh, damaa foog ni président Macky Sall dafa comprendre enjeu politique bi nek mbour wax deug yalla mhm. bokay jang deug deug xol liste benno bokk yakari da nga nan kan moy informer président Macky Sall. tey directeur général bu Petrosen Holding Mamadou Fay mhm. docteur Mamadou Fay euh bamou commencé liguey kenn xamul kan la. li indi ci mobilisation ci bir euh, benno bokk yakar kenn xamul nan la toll. Mhm mais bi ñuy bi ñuy tànnaat ci liste Benno Bokk Yaakaar jëluñu ko maire bi fa nekkoon nga xam dañu critiquer session partout partout ba ci fan yi passé moom ci boppam moo waxal boppam ci ay njuumte yu ko dikkal mu wax ay jalgati yoo xam ne jalgati na ci wàllu xaalis lu toll ci dix-huit millions jox naa pour mu indi ndox dëkk sàngam mmh. ma joxaat diw ñu sàcc xaalis ba ba ñu yónnee ko sommation interpellative mais est-ce que président Macky Sall dégg na loolu pour reconduire nit ki mmh. nga dem ci yeneen dëkk yu nekk ci département bu par exemple bu fekkee njaga ñaaw la mun nañu sax nangu mais bu dee biir nguur ci boppam tey wóor na ko base politique gu parti socialiste APR amagul doole bu mu jàkkaarloo ak parti socialiste Mbour. moo tax ma ni kan moo koy informé ci département bu Mbour ci carte liste yi. Mhm. moo tax ma ni Mamadou Ndione ci mom la dess pour mu jël commune bu jas bu fekkee ligéyon nako ci mom chance bi mu am ci takkatel ndomba tank gi mu jité fi Sénégal mm-hmm. bu fekkee na ñak na élection yi na xolat copem mm-hmm. parce que amoon na chance tabax base bu dëgg ba mu gagner localité boobu mm-hmm.